abonné leen ci seen seen YouTube Partout TV moom leen di jox xibaar yu wér te wóor Partout TV abonnez-vous Partout TV Partout TV Euh, dal leen ak jàmm mbokki internet yu partout TV way leen di abonné saa ne mën nañ ne kat lañ doon notification ki nga xam ne rek moom mooy di Sabassy Faye daal di jot a tombé ba tax nag jamono bi ñu toll nii mën nañ li nga xam ne rek moom moo des dese ci côté kii di président Ousmane Sonko ak mandataire am bi nga xam ne rek moom mooy Ayib Daffé ci nag jëli li nga xam ne mooy fiche de parrainage yi nga xam ne jamono bu nekk rek ñu ngi ko wante kat bi la yoon mën nañu lépp daal di yem bu ñu toog nag di xaar ba xam est-ce que Ayib Daffé dina. na daal di dem pour nag récupérer li nga xam ne moom mooy fichier yi fekk nag jamono boobu ki nga xam ne rek moom mooy juge Sabassy Faye gannaaw bi ñu ko tegee rek li nga xam ne moom mooy coow loo xam ne mën nañu gàlloon nañ ko si ndoddam ci dossier bi nga xam ne rek moom moo soxal kii di Ousmane Sonko ci nag mbir mi nga xam ne rek jël na ko tamuy seetal kii di Ousmane Sonko pour nag ne dafa éligible pour nag bokk ci ay élection yoo xam ne kii di président Macky Sall moo koy daal di organiser ci ak nguuram nekkat lépp loo xam ne rek ak tooñ na dañ ko jëloon tekk ci kawam moom tax nag mu tonni woon loolee weddi ko ba mu seet wee ci nekkat dafa jaadu ñu jox ko li nga xam ne rek moom mooy fiche de parrainage yi comme niñ ko joxee yeneen i moroomam bile yoon nag mën nañ di jotay yembul la ca des nag du leen dul procès ak digganteem ak kii di ni ñu war a daal di ba xam fan la wànneent di mujjee di président Ousmane Sonko nag bu ñu fàttali ko di nay door li di grève de la faim bi ni ki démb ci àllarba nga xam ne rek noonu la ko jot a xamle woon euh, di leen di jaajëfal di leen di wax ngeen di wéy di abone